songale bu Zinedine Zidane ak kii di Edouard nga mu duggaat ci ortalam di dox normal 5 sur 5 gars yi Barcelone nag fi mu toll nii li ma leen di bàyyi leel ci commencement ak ndoorteelu xibaar yi yéen ci info matinal ci kàddu gi Alaaji Malick mooy composition bi nga xam ne moom la war a teg samedi gars yi jox naa leen clavier bu ngeen doon teg kan ak kan ngeen di teg ci kanam gi yi man am naa fa Lamine Yamal Roberto Lewandowski Dani Olmo àggaleel leen ma li ci des maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen bëggee. ci kàddu gi seen mbokk seen xarit Aladji Malick TV ci information yi wér te wóor sàkku ci abonnement yi ci képp koo xam ni euh, mën ngaa euh, abonné euh, Ansa Filiga Ngoog moom it di entraîneur la boo xam ne fi mu toll nag mi ngi door a commencé nag dëgg-dëgg mbaxalum xeer mi ndax xam naa ne fi mu toll ni Barcelone équipe bu Malick Sarr bi équipe la boo xam ne bu war a mucc ay Malick Sarr sponsor bu mag bi ci kër gi nga xam ne ñëpp la boole la mooy original. wàcce wat na stock boo xam ne bu ama am solo la ci wàll mooy gars yi commencement ouverture li leen di match yi dara du leen ràcc ci li nga xam ne mooy mooy original gaaw leen jokkoo ak Malick Sarr yow mi jaay en stock bi lafane fa bari na lool car macha allah Aji Malick Sarr mi ngi wàcce marsa Sandaga ah, ba ci suuf lu tax loolu mooy ubbi teg li nga xam ni mooy cinq grands championnats yi nekk fële ca Europe lim ci def ci ay xéwal gars yi kenn musu ko gis ci mooy yu mucc ci ayib mooy yoo xam ni yu rafet bees tàq di xoyom xoyom yi ah, daanaka moom la teg ci taabal ji a ah, teg ci nag stock boo xam ni bu ama am solo li ma Alaaji Malick ma ne ko doomu nooy mu loo loo wax doomu ndeyu xarañ loo wax mun ma Alaaji Malick ba muy ñaar jaay qualité ndeketewoo moo wóor qualité yu mucc ayib ci dernière génération yi mooy boo mën di Alaaji Malick Sarr daf koy jaay tey day jaay li nga xam ne mooy angura ndax am na stock boo xam ne képp koo xam ne bëgg nga angura boo wootee ci suñu numéro danañ la ko livrer te foo mën dina ci Sénégal bu la neexee xaalis bi ngay yónnee ñu tegal la ko ba mu droité ci li nga xam ne daanaka moo ne sa gox bu nekkee Ndakaaru Thiès ak li ko wër foo mën dina tamit boo ñëwee ci suñu place ca Sandaga ñi ngi foofee daanaka da ngeen fa fekk ay ndaw yoo xam ne yu mucc ayib lan def seen commande ak lépp taw féex la di ngeen mën am loo xam ne lu original la kon li nga xam ne mooy Manchester City Tottenham Tottenham ak Barcelone ak ñoom ñëpp ba ci Juventus de terrain Paris Saint-Germain kenn ku ci ne daanaka loo bi nga xam ne soxla nga ko ci wàll moyen mën a supporter li nga xam ne mooy sama équipe am na ci palaasu Malick Sarr fële kon gars yi bàyyi leen ko xel bu ko defee ngeen def seen i commande tasaare foofu balaa stock bi nga xam ne moom lañ njëkk a indi stock boobee ngeen gaaw wesaare bu ko defee conteneur yi wàcciwaat moom Alaaji malik Sarr doomu ndeyu Modou moo leen di may xibaar yi am solo yi ci Aladji Malick TV maa nga noonu ginnaaw bu ngeen defee seen i commande ci Malick Sarr sponsor bu mag bi ci kër gi bi nga ngoogu gis ngeen ko bi muy dugg hôtelam oh, dugg hôtelam mooy génn na ci fi ñu doon football def def entraînement ba préparé wu nag dugg ci otoom wala boog dugg ci bisu Real Madrid bi delluwaat hôtel ba tànk mi ngi koy dëgg normal di dox donte nag am na blessure bu ndaw waaye blessure boobee ci stade yi nga xam ne na ko moom mii di Edouard Camavinga xam na ne ni wax dëgg yàlla mi ngi tane bu baax a baax tey yaakaar naa ni eh, yéen ñi doon tiit ci moom ñëpp ba bu ngeen doo sant waaye nag eh, li jaaxal gaañu mooy tey jii la wax ni moom lañ ko war a defal test médical jikko kon maanaam leer na ni moom euh, est-ce que dina bokk ci match bi am te yaakaaruma ko comme war a defal ay test war laa génne li résultat toog di xaar kooku yaakaaruma ne dina bokk ci match waaye li am solo mooy maanaam ñu bari daal jàpp na ni championnat bi buy ubbi war naa man a taxaw tem euh, moom mii di Zinedine Zidane gaa yi fàtte na noo néewul ba néewul mais fàtte na si Zidane muy songale euh, bal bi ci li nga xam ne daanaka nag moo nekk fële ca Euh, Real Madrid nga xam ne mi ngi ànd ak équipe bi nag euh, war a mën a seetaan match bi nga xam ne ab final la tey jii songalee nag bal bu dem ci kaw bu ñëwaatee du xam fu muy teg tànkam ndax gone gi bi ñu toll nii yaakaar naa ne boobaak léegi fàtte na bu baax a baax donte nag jàmbaar la tey it bi mu bàyyi football booba moom mii di euh, international français bi bokk kook Algérie dese woon na lu bare bari waaye rek fi ñu moom nii moom fulkooku réero la Julián Álvarez mu def entraînement bu njëkk nag ci info matinal ñu wan leen ko di leen ko proposé moom go rek Atlético gi gis ngeen ko noonu cabax-cabax geeg racc-racc ji foofee nga xam ne mooy Atlético Madrid di star bi nga xam ne ñu baree bari nag ñu ngi koy xaar ci boobee championnat waaye tamit di star boo xam ne waa Atlético rek fi mu toll nii moom mook euh, Antoine Griezmann ñoo nekk tête de liste ngeen gis ko ne gi nee naa leen moytul leen ko bu baax a baax wax naa leen ko waxatu leen ko tànk bi lu ci tege day dem Real përi leen euh, Barça përi leen Valence euh, Villarreal bu ñoom Papa Gueye ñoom ñëpp nañu pare te xam ne gone gi moom am na lu mu ëndaale lu ama am solo la gars yi match bi ci kanam tuuti la euh, ci ngoon gi balaa moo ñëw bu soobee yàlla dana am direct boo xam ne danañ ko def ak yéen ànd ceeg yéen ci information yi Real Madrid Atlanta ba ci premier trophée bu gone yi merengue yi daal di koy belli loolee lépp dara du leen ci ràcc dana ci ànd ak yéen ba seen xol sedd guy. ndax yaakaar naa niñ koy defee ak match yëpp rek match yu mag yi moom dañuy ñëw di jël ay décision maam di ci def ay information waaye revue de presse bi tamit bari la revue de presse boobee di a dund sax ak ci kanam bu 9h30 jotee télévision bii di Aladji Malick euh, ko moyit euh, xibaar di bëccëg gi di ngeen ko mën a am boole seenub la fi jotoon a rot ci information leen ko indi ci bëccëg gi bu ko defee ngeen mën a ànd ak ñun euh, dund ko looloo fi ñëwoon ci info ci kanam tuuti yeneen information woy leen dina topp jërë ngeen jëfati